bu meloon ni war a mel ba tey rek lañ waaye ku ku ñëw ñu fàq luñ wax ñu déglu te luñ wax nu gëm lu dul lu dul yàlla ak ñen te fexe leen ba ku dul yàlla mi leen bind bu leen ko def buur bu leen bi bu leen bi moom yàlla rek moom ndax lu tax mu moom moo sakk xam nga kisak xanaa nag moom moo kisak moomu kisak tudd nag lu lu mu ci doon dara ku dul yàlla bu leen nangu mu moom la sa kilifa yi mooy ku nga doy la yàlla boole la ak moom mu di la jëriñ adduna ak àllaaxira te kenn lañ ci am muy sëñ Tuubaa bu leen nangu kenn yilif leen ba ci man ku dul sëñ Tuubaa bu ngeen gisul sëñ Tuubaa ci kooku loola nag yéen a moom seen bopp bu leen kenn moom ku dul yàlla mi leen di bu leen kenn yilif ku dul sëñ nag moom yàlla mi sàkk rek ko moom moo sàkk moom la genn kilifa li lan am muy ci suñ yàlla nag kilifa moom la ñuy topp moom la ñuy dégg ngiram moom la ñuy def référence moom la ñuy xalaat lu nu mu ko war a gisee moom la ñuy bàyyi su ñu tudd kilifa sabab yeeg yëpp amul yi saafara yeeg diw yeeg kitaaw yeeg ak gisaane yeeg yëpp ay caaxaan la sonal sa làmmiñ da leen jàng alxuraan alxuraan bii ñuy def bu jàqee ñu dina ko jàngal alxuraan man loolu mën ma jàppal alxuraan woo fee su ci ne su ngeen jàqee jàng alxuraan danaa andi taw waxu ko def na su ngeen jaaxlee jéggulu leen jéggale jégglu la ñuy déglu la ñuy digle ci jàpp waaye yàqu mu istaxfiru rabbakum suma tuubu ilayhi su ngeen ko defee mu ne yursili samaa aleykum ijra alxuraan bés koy ëpp dund la ndax bis bi yàlla sàkk da nga ko war a da leen jàngal ko suñu baa nee na kullu muridin bi yaruuti bépp bu wéeru ci man fal yu din na saxal tilaawatan li xayri zikri lu muy dakk bis bi ci jàngalu alquran adim tilawatan min alkitab wala salaasatan min al ahzab sëñ bi na sax yéen ñi ma yaakaar saxal leen di jàng alxuraan bis bu ne donte ñetti isib alxuraan bi si nit ba mu bañ a taw nga naan man jàngal dañ koy jëfal alxuraan day leen dëkk jàng alxuraan ngeen man bu ngeen amee jaaxle na ngeen jéggu loolu la alquran yaa xam ne istaqbilu waaye taqrabu maa tayassara min alquran nag tegu ca ne bu boobaa dana taw waaye yaa xam ne istaqbiru rabbakum suma tuuboo ilayhi yursili samaa alaykum idra buñ jaaxle dañuy jéggulu tuuti buñ buñ buñ jaaxle jëfinu lenn la nuy jàng alquran ngir jëm kullu muridin bi yeloosu yooyu woowu na ngeen ko xam mm-hmm. suñu borom nee na sëñ Tuubaa nee na kullu muridin bi yeloosu fal mm-hmm. yu din mm-hmm. tilaawatan li xayri sikri gisu leen ko alxuraan ah, ci xasida waaw lekk na man saxalal di jàng alxuraan saxal mooy la bisu yàlla mu dellu ko leeral ni addum ci laa wata mu ne ci caabi dee leen sax jàng alxuraan walaw salaasatan min al ahzaabi looloo di kenn wëtti bi ko ñett yi si gaawee leen jàng alxuraan di nekk ci seeni biir yi waaw ci yàqal kenn liggéeyut la ndax bu ngeen di jàng na bu ngeen sonn bàyyi leen bu ngeen baree ay xalaat yu bari bàyyi leen mu ngi mel nag lekk dangay nit xam ne boo koy booy lekk mu neex ci yow. jàngal fa ba nam ko dangay di a def. waaye dee leen bi ak ak diw yeeg takk yi. malayka yi dañ koy reetal. bu ñu leen takkee ba bari. parce que suñ koy reetal. waaw diwoo baaxee dañuy jëf ñu bu kol bi réyee ñuy jooy ñett fekk na loolu murit bu gisee beneen lekk kat ba ñu melo waaye murit bu lekk ba ñu fokk bay attaat malayka yi ñu ko xoolee dañuy jooy jooy jooy ñu nit di jooy yëpp di seen murit bu bari gàllaaj dañ koy reetaan mm. murit bu bari lu muy diw dañuy def ci lekk loolu nag fexe ba ñu ñu la boole ñu ngi ba topp ko. kii di dari bakkan. kii di kii di jooy. xam nga loolu lépp bàyyi bàyyi lépp. bëgg bi ngeen bëgg nii moo tax nekk ci boppam. man li ma xam ko am. def mag yàlla fi yàgg tëgal. góorgóorlu wereen yu mm-hmm. weesu bu leen wax ci ak na baat bi ci biir mm-hmm. dégg nga lu tolloo wala xam dëgg bi ak dal bi ngeen leen ci gisati la jëkk la jëkk weer yi gisatu leen du mm-hmm. ngeen leen ci gisati baal yi ñu doon tudd ngir ñu ànd ak ñoom. dootu leen dëggati ñu ko. kenn ku ci ñemee taxaw place. wala fa ñuy wéete. naan xel du sëñ tubaab yi. ndax lañ tax lañ tax lañ tax lañ taxawal. diine amu ci jëkk. boo ko waxee ñoom ñoroon nañ jëkk. doomi baara doole ji nee na mbàkk am ko ko ne bu ko fi waxee te kooku ñëw na fii ne ne la. fàttaliku leen. tamit jërë nga wax. ne fii mbàkk xew. bokk na fi ñu. gëmuñu li ñuy wax du dëgg. ku ngeen leen fi gisati. lu dul. bu bu bu bu ba janati ba defe na. war nañoo ñëw. gëm loolu lañu rabaat ko. ña ngay rabat. waaye danañ fexe ba. lu doon gox yoo xam ne. danañ noonu baax kenn wëru leen moom ko xam la ñuy def kenn wëru ko jéem ko lu jar noonu moom di ca xalaat ko nit ñëpp bi diine lañ bañ sëñ Tuubaa lañ bañ defe nañ ne ndax dañoo defe ne ñaari ngóor a fi am lii lii leen naqar yii yii moo leen lu waaye am jox sëñ Tuubaa lu waaye am jox sëñ Tuubaa loolu leen naqar yéene wuñ ñu ko tubaab yi sax leen gën ndax tubaab xam na adduna demoon nañ ba xam ne murid yi am nañ baat borom mbooloo la ci tubaab borom mbooloo ak borom alal ci xam waaye ñii ne ku am alal ñu iñaane ko bala ñoo am jàmm sos ko nangu alal ku am mbooloo ñu fexe ba yàq sa der ba kenn du la gëmati loolu lañ dëgg waaye nit ku nekk man ko xam xamal nañ ma ko nit dana këppwaat ci seen kaw da ngeen ci teg seen jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf yàlla waaye waaye da ngeen xam ne li ñëwoon dëgg la ci gàtt suñu lan wàññi wax wax ñu déglu yéeg ñu jox leen koy wax